Bari an kulte, akwai man bagasi. pois e na a no. Like. bari bari jani nga fɛn fɔ han i ko i ko n bɔ ka don kilo la suruwa kɔngɔtɔ n m'a mɔ ye wala sabu han n m'a mɔ ye bari n k'a ka tɛlɛ han liide kano mone liide kano mone hey dafa neex waay dafa neex waay kano mone liide kano mone liide kano mone davane neex davane dafa kano mone ngo nyine te butafu eh? ka hakili tuito ka laweri kasu ke santo karoto santo ke kibari sate wo kono abe nin kante ko nin kano koto muna aman imagine no akano lanno man hakili fulo teto akano calculation no minus on impuloso times an division no equals to your future eh? mu ngi mu ngi wax ne déggul olof waaye foog naa ne dégg na olof. dégg na olof awa dafa jot nag pour mu wéy si olof because eh, si soose rek laa wéy neex na torop waaye suñu ñamaloon si olof dina dina am solo bu baax a baax. ragal ne guddi gi ni moo gën a neexee rek guddi gi di gën a métti rek. Mm-hmm. ndax ni ma fi gisagum ne fi nekk nit yëpp kontaan yaram yëpp tàngal nañ. waaw moo tax ma ne leen bi dafa nekk luy gën a neex Tijaan. Mm-hmm. xam naa ne nag ñi toogee ne leen ñoom suñ paree rek dinañu ñu daal Wah, ba léegi tontu wuñu waaye duñ ko mën a tontu nag awa non awa xam nga current affairs lañu wax na taxawal awa yow suñ la laajee nekk 2014 bi lan mooy sa résolution lan nga ñëw wax suma résolution mooy gën a jëm si kanam jàpp ba baax defar ba mu baax xam nga man si yooyu laay yëngu waaw boo defaree ba baax kër gi ah yo tamit privacy bi nga laal maam maam maam gis naa ne daal mu ngi taxawal Kumba ak ñoom Aïssatou ah waaye it's only fair di ah it's only fair. waaye yow yow léegi maam lu mu la laaj tontu ko ba pare. <laughs> wan naa ko ko man ko dañoo defar ba mu baax. waaye mu ne si kër bi ak office bi yëpp. Ah, defar ba mu baax. waaye anyway ñuy wish his excellency the president chef mhm. professeur docteur Alhaji Yaya AJJ Jammeh 2014 biñ dugal nii yal na ko génnal 2013 biñ génn nii ñu di ko si ñaanal lépp li nga xam ne moom la éenee réew mi yàlla jàppale ko ci mhm. di wish na ki nga xam ne mooy Lamine Manga mi nga xam ne moo nekk bopp GRTS fii yàlla may ko mu am ene gi nga xam ne moom la amal Gambia radio and television service yàlla jàppale ko ci bu baax a baax a baax maa wis nag suma jëkkër a happy new year spenuma koo moom ak suma famille bi yëpp maa ngi si office bi liggéey bi moo ko waral waaye di ko wane ko happy new year my husband di wis nag xale yi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi yëpp ñoom Amadou Fatuma ah. ñoom ah, xale yi ah. kon kon kon kon mooy Aysatu ñoom ñoom ma di leen. Aysatu daf ma bëgg a dal fi mu nekk. Ah, kon maam that reminds me man it ma wish ma borom kër. happy new year ak suma ñaari bébé yi nekk foofu noonu ñoom ñoom maa leen a wish happy new year xam nga ñun liggéey bi rek liggéey bi moo ñu soxal. ku nekkee naan job sana doo dem diina ma ne leen déedéet ma diina maa ngi ko defee di GRTS bi nga xam nga ñun suba ngoon guddee bëccëg ñu ngee liggéey ñu ñaanal nag képp koo xam ne amuloo borom kër yàlla meera borom kër maa si aysatu yi kaar macha allah rafet jongama eh, eh, eh, ak ak ak ak day kumba bàyyi leen aysatu waaw bàyyi leen aysatu nag waaw léegi nag maam ñoom ñaar ñu ngee waaj a dugal benn artiste boo xam ne ndaanaan la lu muy def dafa neex mhm. lu muy def mun na ko waaye balaa ñu koo indi mhm. léegi suma audience yi. waaw dafa am luma fi gis maam. waaw dafa melni ni. waa boor bii. waaw ñoo gën saf xorom. <laughs> ndax ndax ndax waa boor bii la. ah ma ne ah. dañuy seet. ñaari groupe yi ah. ñaari boor yëpp a xorom kon tàcc leen seen boppam ak ñana am doore fan laay doore ban groupe ah ma dooree fii waaw léegi léegi nag da ngeen maay déglu ku ci sa xol neex nga sopp sa yaay bu baax a baax a baax dama ne nga yuuxu neel wóoy waaye Tidiane maam ah, bi bi xam léegi dama ne naa jox pourcentage maam waaw pourcentage waaye fu nekk pourcentage bi dama koo dee dama koo jàppaangu yéen waa boor bii ku ci sa xool neex nga bugg a sa baay bu baax a baax a baax neel wóoy. Ah. waaye léegi lii rek lañ buggoon dañ bëggoon ñëpp foo ñu ree ñu ñëpp kontaan parce suñ leen indee invite lañ suñ biir studio ah lii rek lañ bëggoon yéen ñëpp ngeen ñëw ngeen kontaan ndax bu leen neexoon di ngeen nekk around Sénégambia bu leen neexoon yéen a ngi feneen waaye GRTS ngeen taana kon gaa ñi tàccu leen ma seen boppa bu baax a baax a baax a baax a baax a kon nag jërëjëf maam léegi nag ñu dugal beneen artiste bi kooku kan la. beneen naanaan ku ñu naan dañ ko xame woon ci Nancy Lovely Mbu mu boppa boppam naan na kon tàccu leen ko jigéen la te moom tamit su dee da ngeen di si tànn GRTS mbalax yu saf